ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey ji nag ñoo ngi fii ci arène nationale euh, kii di CNG woo ñu fi teg mise bi 3 millions tey mercredi 7 avril 2021 ñëwoon fii tey di leen présenter li nga xamante ni moo fi jot a am am na ay ndaanaan nag yu bëri yoo xamante ni ñoo ngi fi waaye mbokk yi du may wax daal dama leen bàyyi ñu dëgtal leen li fi jot ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf sama gars yi ci kanam léegi léegi. Ndiaga Dolé ngi moo xaw a ëpp yaram tuuti na ko doon na doole doole yamul mbokk yi Ndiaga Dolé daan na ko da koo jàpp dafa lancé ko mbat yéen ñu amaat fa beneen combat ci diggóo bi sëgg na jël na ko da ngay plaqué lu mu koy def buur na ko dajale day jeexam jeex plaqué na ko daan na ko daan na ko waaw. alors ñun. ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Général Malika nekk noonu dama waaye mu ne ko da koo jox na ko avertissement arbitre sifflé général général Malika général da koo waaye booy bi nanguwul ñoo ngi lewaatoo général añ na ko waaye booy bi nangu taxaw ba plaqué na ko hee booy bi daw na booy bi daw na abi waaye nanga ko doon kat appelé réclamé général da ko bëgg a yor waaye booy oh, doole doxul jàmm doole doxul jàmm daan na ko lu abit bi wax lu abit bi wax lu abit bi wax war na ko nomb war na ko nomb da koy bay daan na wala daanoogul est-ce que dina ci gën daanu na waaw mbokk yi am na sëfë na ci diggante Calme Ndour Buldozer Caatu Waalo gi noonu di dugg si Caatu Waalo wakiru Waalo moo tent bopp yi ngi noonu ak Buldozer Calme Ndour à gauche Buldozer à droite ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Calme Ndour Buldozer Kalou Ndour du désert Kalou Ndour jàpp na bu Calme Ndour Bulldozer Calme Ndour Bulldozer Calme Ndour ngi ci beneen côté bi ngi am caatu na ko Calme Ndour fàq ko mu Eh, doole Calme du Bulldozer dalay daan dalay daan Calme du Bulldozer Calme du wone ko ndoom baadu la yenu da ko a ba ci kaw doo waaw doole yi doxul jàmm xoj na ko Calme na ko Calme du Bulldozer na ko loolu bokkul ci làmb na ko waaw Kalmoudir bu Ndefleng jëluma waalo ñu noonu waalo ñu noonu waalo baay fàq na ko mu ñëw caatu waalo ñu noonu moo tent tent bu xonk bi takk ngeemul xonk lu mooy noonu laay am na xale boos na ko lu mu koy def da koy yéene tegal na ko seet na waaw. Caatu Waalo daan na ko mbokk yi acteur yi ñu ngi acteur ci digg géew bi moo ñëwoon ginnaaw acteur yi koy yor acteur lu mu ko def nii daan na ko acté daan na ko. Thank you. Brian Batista Ramsey Batista Ramsey Batista seen combat baa ngi bëgg a yàgg Dame Sène daan na Batista mbokki Zambala nekk noonu Zambala à gauche. Zambala a ngi noonu. Général Malika a ngi noonu ci digg géew bi. Zambala jël nañ booy ba lu Zambala yi noonu oh doole yamul doole doole. acteur moo ngi moo ngi amul maa li tëcc lu bees ci digg bi. Bougane acteur. jàppalante loxo bàyyante waat. Bougane acteur. Bougane jàpp na. Bougane maa ngi am gi caatu waalo. Bougane acteur Bougane am na loxoom ci ngemb moo ngi koy ëñ caatu Bougane acteur acteur joxe nga wet ga Bougane a ngi koy jëm ëñ wala da koy tegal 16 acteur nga koy mbot Bougane acteur Bougane acteur ay Bougane Bougane yenn na ko Bougane yenn da koy daan wala ànd na ñëpp ñoom ñaar Bougane acteur Bougane nga ca wet ga bu ak ay acteur daanu Bougane da daanu waaye Bougane benn loxo ma ngi ci kaw Bougane acteur Bougane acteur Bougane Bougane mbokk yi moo moo ngeen moo ngeen mbool xonk li acteur moo ngeen caatu waalo daan na léegi caatu waalo daan na léegi Bougane acteur Bougane takk na ko acteur takk na ko da biit biit daan na ko acteur daan na Bougane Pape Moro Ndiaga Dolé Pape moo féete à gauche Ndiaga moo féete à droite Pape Moro Ndiaga Dolé Ndiaga Dolé tey am nga combat xale du may da keroog moo finale woon féete Adrien Senghor moo ki nga ni mooy général Malika Pape Moro Ndiaga Pape Maone Ndiaga Dolé Pape añ na ko baa da koy jaay doole ci beneen côté maa ngi fi am ki nga xamante ne mooy Dame Sène Pape Maone Pape Maron Ndiaga Dolé ku nekk am nga ngemb Pape Maron Ndiaga Dolé Pape Maron Ndiaga a ngi ci wet Mal Ndiaga Dolé Ndiaga Dolé plaqué Maroon Ndiaga Dolé daan na Maroon moo ngi moo ngi mu lu weex la nga maye bari na seen a ngay bëre ndaanaan nga am Boy Jules Boy Jules may kii dafa bari waaye mbokk yi làmb la dina ko zongale oh daan na ko daan na ko Boy Jules daan na Malick kaa ci digg géew ni mooy Ngor moo xaw a suturi ki nga xamante ni mooy Caatu Waalo ikiri Waalo ak Ngonde Faye Ngonde Faye mbokk yi moo ñu woon ginnaaw caatu waalo moo tent bopp bi tent bu rouge bi Général Malika ngi bëre fee xale bu os oh daan na ko jël bu rëy nga pili ba Général Malika tamit daan na ki nga xamante ni mooy adversaire am. arbitre ba arbitre ba war na ko ndomba da koy daan da daanu da daanu da daanu. Ndiaga Dolé lu muy na ko Ndiaga Dolé oh dafa sonn. si dooleem la ko daane. dafa sonn Ndiaga Dolé daa sonn Ndiaga Dolé dafa da koy daan da koy daan yaa ngi bëre bon na ko bon na ko wër na ko wër na ko nu ma def oh da ngay daanu da ko doon mbot daf laa sori ginnaaw la la féete mënoo koo mbot naa la lamb naa la aare wu juufa gi noonu ambiance sax lay def eca kaaku jëlal ma aare wu juuf aare wu juufa gi noonu te aare ma ambiance rek tournoi poids lourd yaa ngi noonu ci diggante Général Malika Général Malika Zambala demi-finale poids lourd ñooy noonu ci digg géew bi Général Malika Zambala ñoo ngi yàggaayu di dem góos dem droit ci diggante Général Malika ak Zambala abi baa ngi wax ak ñoom laaj na leen ku nekk ba xam pare nga ci diggante Général Malika ñoo ngi lewaatoo Zambala à gauche Général Malika à droite mbokk Général Malika lañ jàkkaarloo Zambala moo ñu wan ginnaaw Général Malika Zambala eh Zambala Général Malika jël na tànk Malika Zambala plaqué na ko léegi mu rëcc demi final poids beneen côté bi maa ki nga ne mooy caatu waalo Général Malika Zambala lamb ju noonu Général Malika Zambala. général Malick Zambala général Malick Zambala général Malick Zambala Général Malika ëñ na ko di daan na ko Malika Zambala daan na Général Malika Zambala plaqué na Général Malika mu daanu ah, tey Général Caatu Waalo yi noonu mbokk yi Zambala dem final ñoo ngi demi final bi Laga Caatu Waalo mbokk yi ñoo ci beneen demi-finale bi Zambala plaqué na Sénégal Malika mu daanu Laga Caatu Waalo Laga Caatu Waalo Caatu Waalo moo ngem moo ngem li tentu bopp bi Laga moo ngemb boo ngemb lu muy ji Laga Caatu Waalo déedéet kii du Laga Guerre <laughs> kii Laga la <laughs> bula Laga moo ngemb boo ngemb Caatu Waalo moo ngemb boo bi Laga Caatu Waalo deuxième demi-finale Zambala moo daan ki nga xamante ni nii mooy général Malika ñoo fi am final poids léger Laga Caatu Waalo Caatu na ko mbaa doo daan oh, Laga mbot na ko Laga mbot na Caatu Waalo Laga mbot na Caatu Waalo Laga daan na Caatu mbokk yi final paré baa ngi noonu El Hadj ak Jacques Maone Jacques Maone moo ngem moo ngem bu vax bi mbokk yi moo xaw a suut tuuti El Hadj moo ngem moo ngem bu ñuul li boo ko xoolee El Hadj Jacques Maone Jacques Maone moo ngem moo ngem bu vax bi El Hadj ndeysaan boo ko xoolee sa xel dem ci Tafa Gueye ndax tànk El Hadj Jacques Maone Elhadj ak Marone final poids léger CNG Elhadj ak Marone Elhadj Zack Marone Elhadj Zack Marone Zack Marone takk na ko eh. takk na ko Zack Marone takk na ko da koo bëgg a jeexal takk na ko tamit tegal na ko 16 tegal que di nga ca génn war na ko ndàmba Elhadj war na ndàmba Zack lu ma koy def nii Zack Mayon woon na ko ndomb Zack Mayon woon na ndomb El Hadj trois appuis Zack Mayon woon na ndomb El Hadj Zack Mayon koy daan wala déet oh daan na ko doole delloo ziar bu baax a baax. nga jël final poids léger euh, kii wu mi CNG noonu naka la lay def. xanaa kontaan rek na balaa may kontaan yaakaar naa ne gars yi ñoo ma gën a kontaan si bo reer yaa ngi ni ñëpp kii sama mag la ñi ñëpp sama àndandoo lañ kii ngay gis ni kii moo doon wàññi wàññi sama poids semaine bi yëpp tere ma lekk tere ma maa yi. wallaay damaa wàññi poids 91 kilos laa demoon semaine bi yëpp dama koo daw xam nga loolu dara génnu koo métti kontaan si kii bu baax lamb simple rek nga ñëw gars yi topp la nii. waaw loolu mooy àdduna rek ñi ñëpp ñooy ànd ñooy ànd chaque jour guddi ak bëccëg bu muy metti ñun ñooy ànd kon bu ñuy neexee itam ñoom ñooy ànd waaw di leen sant xanaa aw ma seen fay. lan nga mën lan nga mën a wax ci ñi lay seetaan ci wasaare lamb. ah. lan nga mën a wax ñi lay seetaan wasaare lamb. xanaa kontaan si ñoom rek kontaan si yéen yéen yoo xamante ne yéenay dundal lamb bi lamb fu mu nekk ngeen topp ko topp mbër yi di leen wax ñoom mooy loolu nit yi buñ gisee mbër yi ci ci fii rek ñuy boore xamale yéen yéen a koy génne kon maa leen di béggee bu baax di leen sant yal na leen yàlla ngeen dem si kanam yala moon na jaajëf béggee am ziar naa la. maa ngi lay delloo jam fan yii dañ la gis si lutte simple bi lan la. waaw lutte simple bi lamb joo xam ne cosaan la aada la man nag yàlla def dafa def ma bëgg ko nee naa ñi ciy wëy yëpp. képp ku ma ci gane sa kër bu ma rayal xar bu ma rayal béy dee ma wéyee rek may njóg man moom amateur simple la dama koy dund damay dund wéyu séeréer di dund tëgg mi waaw bëgg naa làmb lool nag waaye làmb simple moom macha allah. mbaa du sa xel da cee nekk parce que gis nañ fan yii yëpp promoteurs yi moom la ñuy tijjee làmb da daan tijji promoteurs yi di tijjee lutte avec frappe mais jamono ji ñu toll nii képp koo xamante ni da ngay tijjee lutte simple nga ko tijjee mbaa du lutte simple bi cee nekk. da xam sama xalaat wala sama ngént wala li may nas lig simple incha allahu rabbi moom laay tijjee man mii di wax ak yow mm-hmm. waaye nag duma ma tijjee Dakar ndax dakaar jamono ji daal di dafa xaw a doy waar maa ngi jëm Fatick le 16 mai ndéwénal laa ko tuddee incha allahu rabbi dem sargal monsieur le ministre Matar Ba maire de ville de Fatick maire de la ville de Fatick maa ngi dem Fatick le 16 mai buñ jullee corté quatre jours après Korité incha allahu rabbi fas yéene fa boo xam ne mis bu am solo lay doon ànd ceeg yéen ñëpp ànd ceeg suñu partenaire yëpp ñu dem fa teg allah Mm-hmm. ah kon ñu bàyyi la xam naa nga nga tàggatoo rek ba beneen incha allah. bu ñu jógee Fatick ñu ngi jëm gambi le 23 mai le 4 France Kaolack ñu ñëwaat fa le juin door a ñëw Dakar mois de juillet diggante Baye Mandione Khoyantane. waaw di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay nag di ci woo amateur yeeg njabootu lamb sponsor yi partenaire yi nañ ñëw gungee ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ñuy def ndax ay lañ te ñu ngi ci di góor góorgóorlu daan suñu doole ñu ngi woo ñëpp di la nuyu bu baax a baax tey nag fi ma sol li ma sol nii dinañ fàttali ne moom moo ma fa génnee du téye micro rek la man bu ñëwee nga kontaan ndaanaan la mu ngi yor métier boole koog liggéey bi ñu ngi woo ndaw ñëpp kenn ku ci nekk na nga am ci loo jàpp ndax li ma sol nii Ouzin mii téye micro bi moo ma ci génnee dama dem maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di wax nag ku ko bëgg seetil Ouzin Diop li ma sol yéen a ma koy laaj moo koy defar mu ngi nii woo leen ko ci. kontaan naa jaajëf maa la gën a kontaan maa ngi lay ziar bu wér. jaajëf moom. mais tey nga yegg final. Ah. ci loolu nu mu lay def. waaw grand plaisir rek di gërëm waa CNG yëpp li yëpp ñoom la waaw yàlla lu muy def kenn mënut dara waaw yàlla ma dem ma dem final waaw noonu la mënoon demee ak liggéey rek. loo ñu mën a wax ci final bi nga jëm. waaw maa ngi gërëm ñëpp waaw gërëm sama club bi yëpp gërëm waa équipe Fadam lépp ñoom père Jili la ñoom père kii Ngelum ñoom ma liggéey bu ma mel nii kontaan naa trop waay. baax na bonne chance. merci allez ok. mooy noonu ci butéel Kaagu Jolof ma loolu. Zambala Zambala tey nga dem final euh, ci njiit mi nga xam te ne mooy CNG loolu noonu la lay def. waaw di sant yàlla rek xam nga waaw di sant yàlla bi mu ñu mayee première lamb CNG ñu jël ko waaw di sant suñu borom bu baax a baax a baax du ñun du mënuñu dañuy jéem rek ay ndongo lañu nekk si école de lutte liggéey xam nga loolu la rek ñu sant yàlla bu baax nak gis la nga daan ko jaay ko doole xoj ko lan la loolu. non ja yàlla xam na ne jaay ma ko doole xojuma ko. billaay wallaay man mbër gënuma fair play si àddina dama ko doon yëkki mu jug di ma saaga ay ndey yàlla xam na lool du ma mës a def violence si lamb waaw mais nag mooy loolu quoi góor yàlla la ci diggante ki nga xamante ni mooy Zambala final baa ngi Laga Zambala Laga Zambala il est vingt une heures et demie mbokk yi 7 avril 2021 Laga Zambala mbokk yi moo daan ki nga xamante ni mooy Général Malika Laga moo daan caatu waalo demi-finale final baa noonu fii ci arène nationale moo ngeem moo ngeem Laga plaqué na ko léegi Zambala takk na ko Zambala takk na ko Zambala takk na ko Zambala Laga Zambala moo ngeem moo ngeem Laga moo ngeem moo ngeemul Laga rasu na léegi Laga. Laga Zambala. Laga jàpp na ko da koy daan plaqué na ko oh. daan na Laga. Zambala daan na Laga. gis ngeen mbokk yi loolu moo fi amoon ci arène nationale loolu moo fi amoon. Zambala a ngi noonu mbokk yi Zambala a noonu. waaw damaa jàpp ngembali ba tax lu ko mu daw ma dóor tànk ma bàyyi ngembali daw pegete ko. laa bëreeg moom. kon li nga bëreeg moom ñëpp ci 100 francs la muy def si ñun xam-xam chaque jour day sol blouson ànd ak ñun bu ñuy dem diin bu ñuy dem géej ak yëpp. kookat foofu lañ nekk école de lutte foofu lañ nekk ñuy tàggat bu baax waaw Zambala.